ay ja doore kox yéen a kay groupe des médias tribune ma woo nguurug Sénégal ba mu gestu mu nekkat yaa ngi tënk xam li ne di fërëtal ah kay dama ne yaa ngi saale waale waaye bu yeboo nga xam ne fàttewu benn yoon nag sunuy mille milliards yi nga xam ne ñoo ko cotisé jox la ngir nga xeexee ka mbas mi ah kay mille milliards fonds force covid 19 yi nga xam ne umpul kenn dañu ko sàcc laa la wax tribune yéen a kaay mooy wax de nee ne bi nga xam ne mënuñu ko fàtte laa la wax ci kaw suuf tribune yéen lii nga xam ne ñu ngi xaar ñu daal wàllox si campagne électorale bi biyee boo nga waajal de dàmm ne foo romb dañ la ko def ndiiraan di la laaj sunuy mille milliards fonds force covid 19 anamu tribune yéene kaay ne yaa ñu na xeeb enquête ne door nga ko def nga ko sëna mu gën a jekkee waaye dama ne ana résultat yi mille milliards yi la ñu wax anamu dañoo cotiser de dañoo cotiser ku nekk dafa dajale ay dërëmam daal di lay jox kon nag jot na ñu xam ñun ñu joxe woon suñu koppar dama ne ana mille milliards yi ana fi mu jaar golo di bay baa buntu dundee moo fi jeex dañu ko cotiser ngir xeex mbas mi ñu jël ko dugal ko seeni poos duñu ko nangu tribune yéene nee na campagne électorale bii de coowar mille milliards yi dina mel ni single bu bees laa la wax dama ne dina booy say nopp yow candidat bu bennoo bokk yaakaar bi yow Amadou Ba bee nga xam ne forum rek single mille milliards bi dana booy say nopp lu ko doy lu nga xam ne ñoo bokk néeg mooy wax de nee na présidentielle 2024 face à elle-même le quotidien yéen kaay di ko dëggal nee ko Amadou boo bëggee dégg dëgg de lu njëkk say adversaire yow jàppale mi ngi ci biir kër gi kër xam ne yéen ko bokk di Benno Bokk Yaakaar toutes les contestations viennent de son propre parti lii le quotidien yéen kaay daal di xamle l'info yéen kaay ne bu leen gaawtu déedéet bu bu fekkee am na ñu nga xam ne ñu ngi koy xataal ci biir parti bi démarre la conquête du pouvoir Aminata Touré si la témoin yéen kaay seen bopp yéen yi nax bu fekkee da ngeen ni nelaw yeewu leen book ndax Amadou Ba mi ngeen tànn biyee boo ngeen xam ne ñun xam nañ li ngeen ci nam président Macky Sall dama ne tànn Amadou Ba teg ko ci nguurug Sénégal mooy def du Macky sans Macky voté Amadou Ba c'est validé une troisième candidature de Macky Sall lii la Aminata Touré wax nee na loolee du fi amee lijjanti leen seen i coow seen biir le point actu ne coowal candidature dama ne yëngal na mbuur yëngal na mbuur laa la wax Oumar Youm dama ne moo convoqué woon fukki maire ak benn yee nekk sa diwaan ba waaye laaj ma ñu ko wuyu juróom képp rek ñoo sa teew laa la wax cinq présents Mahmoud Saleh dikkul Maguette Sène ñëwul Cheikh Issa Sall demul sa ndajama Aïssatou Sophie Gladima moom it demul sa ndajama dama ne am na ñeneen ñu nga xam ne nii kenn neewul ne présent gaa ñi dama ne ci seize maires yi nga xam ne ñoom la ñu convoqué juróom képp ñoo ne présent le point ak tu ne kon coow laa nga ca mbuur de dama ne xëccoo baa nga sa mbuur critique yéene kaay ne kon buy taw na lool waaye nañ lu ñuy def lu ñuy def gis nga Amadou Ba mii dana ko ci def ngir mën a am ndam laa la wax ci campagne bii waaye ñii nga xam ne nekk ñoo day responsable yu nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom it duñu si des ginnaaw aha kay critique wax jee fi nekk rek waaye gaa liggéey lu am jom laa la wax nii ngir gunge Amadou Ba lu sincère laa lay tegal nii tribune yéene kaay ne gaa ñaa a liggéeyu soo ko weddee laaj ko dama ne mobilisation bu ma sëkk la woote laa la wax nii présidentielle 2024 la dëgmal te nee na Amadou Ba la tànn mooy seen candidat kon mooy candidat wam dama ne mobilisation ba amul fenn naan Moussa Sow walal de moom la woote olol jaww be village la bu féete sa commune mu Medina Njaaj be meeting bu mag foofa sànni matt mu tàkk Moussa mu ne Sow dama ne Amadou Ba doxalal doxalal ñoo ngi ca ginnaaw yow la président Macky ñoo ngi ca ginnaaw de coordonnateur bu Puma mooy wax de waaw programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers tribune yéene kaay ne Moussa Sow wane na dooleem wane na dooleem moom responsable politique bu département sa ba amul fenn lak foo sànni mbàtt mu tag la wax nii fi mbokk na ru mbox na sa xel daal kon doxalal keneen kuy jàppal tànk Amadou Ba le point actu nee na mooy Moustapha Gueye directeur général bu CROUS bu Bambey responsable politique APR Diourbel nee na Macky l'homme des grands chantiers Amadou Ba un homme très claire Moustapha Gueye mooy wax de ci le point nee na kuy wër ku fidèle ci président Macky dama ne boo gisee Moustapha Gueye téyel moom Moustapha it nee lu ne fàng kenn du ko jeex président Macky Sall dama ne kuy wër bilan rek xanaa nga iñaan nga ne kon président Macky Sall liggéey na de liggéey na réewum Sénégal soppi na xar kanamam Amadou Ba mi ànd nag bee boo xam ne sànni tàccu la de mu ngi jaay loxoom homme d'état moo di Amadou Ba Moustapha Gueye moo ni ne ci le point yéene kaay directeur général bu COUS bu Bambey nee Ba mooy bu baax bi de un homme d'état la vision très claire tribune yéene kaay ni kon kay doxal kay moo di nguurug Sénégal jamono ji pouvoir baa ngay déroulé de waaye opposition bi dérouté yéene kaay groupe des médias ne lu yées juróomi weer moo de si présidentielle seetlu gi doon génn pouvoir baa ngay doxal de mu ngay doxal nu mu ko neexee laa la wax tranquillement ses activités politiques dans les institutions sacrées de la République waaye jamono joojee opposition bi benn jeego bu ñu manti teg ñu tere leen ko ah kay il interdit systématiquement l'opposition de se réunir même dans des lieux privés yéene kaay bi ne opposition bi nag faaw mu soppi doxalin de faaw mu soppi doxalin laa la wax na muy defee soppi doxalin googee réew mi quotidien nee na moo war waa parti démocratique sénégalais fu mu nekk dañoo sës rek laalox ci miir bi mënuñoo jàdd gauche mënuñoo jàdd droite impasse réew mi quotidien ne le parti démocratique sénégalais coincé fu mu nekk libéraux yi nag dañoo nekk si njaaxare ba jaaxle la ñu toog ndax na xam ñu ndax Karim njaag bu ndaw xamuñu ani lan moo ko téye si ñoom kenn mënu la wax kañ la Karim Meïssa Wade di dikk ñu ne déetawaay maam alkaalima sàmba bu mag bi ndikk coro moom Abdoulaye Wade patt la maye maanu ci mbir mi kenn dégg ko laa la wax libéraux yi fu mu nekk ñoo ngi si ba jaaxle le boy ak tu ne foo fàtte waa parti socialiste foo fàtte waa parti socialiste laa la wax présidentielle 2024 gi ah kon ñeneen ñi dañ nar a gungewaat 40 ans xaalis lay demal Khalifa Sall ren mu fippu nee na dem ndax gënul ci waa PS ñu daal koy gunge le point ti booy wax de nee na ba fii ñu toll laa la wax boo bëggee dégg dëgg de même nga xam ne ñoo doon xëccoo candidature yi ci biir Benno Bokk Yaakaar amul kenn ku ci wuyoo parti socialiste laa la wax lii rek moo yéem askan wi l'observateur ne li yéem askan wi kay moo di wax waxeet gi ci politiciens yi dama ne tey jii lañ naan dafa ba ñëpp gis ci rey seen bopp ne dafa xonq laa la wax au je sais gi naan fii moo baax gongo fii moo neex waaye bu ñuy génn di xarab waaye bi yee i gët di xool discours boobu jàllatul laa la wax lii neexoon difficile de faire passer leur message politicien bu fi wax bi yee nga xam ne gaañaa ngi taxaw di la xaar lii rekk tax Siré Cissé responsable gëm sa bopp am buur ci tribune kaay ni dama ne ñam leen ñi nga xam ne masuñoo toog ci nguur gi ñam leen ñi nga xam ne duñu ay politicien professionnel ñam leen man Bougane Gueye Dany dama ne moo yor profil bii gën ngir xeex système bi laa la wax Siré Cissé responsable gëm sa bopp bu Mbour mooy wax de mooy wax ci tribune yéene kaay nee projet gëm sa bopp mooy projet bii gën ngir nag lu mën a suqali Sénégal laa la wax jàppale sénégalais yi ci jafe-jafe yi ñu ne te fii ñu toll nii nag wax leen ma ani kan moo fi gën Bougane Gueye Dany rek ani kan moo fi gën a engagé Bougane Gueye Dany si yitte askan wi ani kan moo fi séddoo coono yi kudul Bougane Gueye Dany dama ne boo leen bëggee dégg dëgg de tànneef bii gën moo di Bougane Gueye Dany ba fii nekk nii ci Mbour rek xool leen Cheikh Issa fi nekk def fi dara de jël na mbuur daal di koy nasaxal nga foog ne kon lii mën naa wëy dama ne boo leen bëggee tànnee bi gën profil bi baax dama ne bu leen buggaan gay dañuy rombee rek ngeen récc ko ña benn yoon la ñu def moo di waa Pastef foofee sa New York yoor yoor yéen i kaay nee na la fièvre de la sonkorisation gañ le pays de l'oncle Sam Walf Quotidien di ko dëggal nee na Pastef bu New York de daanaka dafa saboté laa la wax ganesig Macky Sall benn yoon ndax gaañu lu leen naqadi woon ci Sénégal rek fay nañ ko ko sa New York le peuple quotidien foofee de tuuti wax jëf ju bari dama ne ku demoon ca ndaje moomee di nga xam ne président Macky ndam la ci am ndam la ci am les grands du monde sollicitent Macky Sall dama ne star la fa doon président Macky mu ngay enchaîné audience ak rendez-vous diplomatique yi agenda bu fees tell laa la wax nii la fa président Macky Sall dem na sax ba diina ji laa la wax sa Maison Blanche am na audience ak Antonio Guterres ñu ne deetewaay mu toog tête avec les moo tën ak waa f fii ci réewum Sénégal yéene kaay bi di Walf Quotidien ne F24 daal daanaka dañoo tëlee lu ñu mën bariwul de ñàkk bay re leen dal amuñu benn feem laa la wax nii moo tax lu ñu organiser du safe vox bob li nekkoon ku wax si lii wax sa la sa des Barça wala gaañaa ngay mbëkki ba léegi de xale yaa ngi tay seen bakken ci gaali loo coy laa la wax nee nañu biti réew rek toog Sénégal ak dundu gën lañu leen loxo gaañaa ngay mbëkki waay gaañ ñu ngi leen di ba léegi rek ñu geestu fii réew mi toll Binta Ba ci tribune yéene kaay nee na fii réew mi toll moo di xale yi jigéen yi toogatuñu de toogatuñu benn yoon rawatina élèves yi ak étudiantes yi ñu ngay def lu ne laaloof ngir nag ubbi teg l'école ji ñu bañ a ay jafe-jafe ci wàllum koppar ah xale yi jigéen yaa ngi ca mbindaanu nga ci mbinda daa doole ga xale yi jigéen yaa ngay jaay ndox ñii di jaay jus ñii di def babysitter ngir mën a dajale koppar ci wàllum inscription bi ah kay takk rek fu laa fay na kaay nee na dañu toll si jamono ju nga xam ne nii waajur yi seen i loxo jotalu seen ginnaaw ñii nekk classe d'examen rek daanaka la dem inscrire ñeneen ñi nag dañuy xaar ñu daal di koy taf dajale ko lii rek tax élèves yu si bari daanaka vacances yi xamuñu si dara dara lañu si xamul lépp dañu koy dóor waar bu dee góor ñi ña ca menee barja bu dee jigéen ñi ña ngay jaay ndox mbindaan mii na daan doole am na si ñax ñoo xam ne ni dañuy